commencé gum nag yegg see guut à partir de demain ba le 2 maanaam ba gannaaw suba salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu. noo def di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp. Mm-hmm. aussi di nuyu kilifa kër gi El Hadj Bougane. ñoo ngi koy ñoo ngi lay fay bu baax a baax. ko ñaanal jàmm. amiin waaye yàlla na ko am. amiin nga am ko yow itam alors lu waral lu wundu grève boobu noonu lan moo tax ngeen bëgg grève. Euh, ok grève bi li tax ñu sumb grève boobu euh, tracasserie bi ci kaw tali bi aussi bokk na ci euh, ci diggante alkaati yi ak policiers yi. Hmm? bon puisque dem bi ak tikk bi jafe na trop ci au niveau du corridor bi dañ ci jànkonte ak ay jafe-jafe yu bëree bëri jafe-jafe bokk na ci alkaati bi mi ngi lay jàpp aussi di jël sa xaalis. ah, ah naka ci yan condition lay jëlee sa xaalis comment ça se lay jëlee sa xaalis tey dina di nga dem euh, voyage ñu jox la ay frais yoo xamante ni da nga ci war a dem ba Bamako mhm. mais tey dinañ la per dinañ la daggal ay reçu yoo xamante nii ak di la attesté di la tardeel nga génne port yor balise escorte douane mhm. ba balise bi day mujj am ay tardement bu boo yeggee frontière dangay mujj di am ay amende parce que ñii dinañ ci fay ay amende trois cent mille ñii deux cent cinquante mille. Hmm. waaw léegi à cause de arrêté yi ngay def ci ci ci ci montage yi moo xam gendarme bi wala policier bi te loolu rafetlu wuñ ko mu métti lool ci ci ci yoon bi aussi. bokk na ci jafe-jafe yi ngeen di jonkantel te bëgg ngeen mu jeex. bëgg nañ mu jeex. et ensuite euh, comme age bi nga xamante nii moom la suñu kilifa yi teg ci permis poids lourd bi nga xamante nii xale yi war nañ ko mën a am ñu ni bala ngay am permis faw nga am 40 ans le minimum trente ans mais loolu dafa bëri puisque yaakaar nañ ni jeune bi dafa war a mën a investir bala muy dem retraite xam nga quarante ans loo ci teg yaa ngi jege retraite kon diggante boobu jàpp nañ ni amoo fi benn possibilité boo xamante ni ci diggante 40 ans yi nga amee permis pour ni da ngay liggéey mënoo fee créer dara. est-ce que ñoom wóoruñu foofu maturité de la conduite ci ci ci longue distance parce que tamit dañuy faral di gis ne ni bu ñu xoolee ci suñu xale yi fii di def transport nga gis muy car rapide wala ay jege jaganjaay ni ñi dawalee ci tali bi xëy na loolu mooy ragalloo kilifa yi ci kaw ba tax ne ñu ne xëy na nañ ko samp 40 ans. waaw xam nga jàng métier yi bokkul jàng métier yi bokkul ñi ko jànge ci ci ci ci yoon yu sori yi ak ñi koy jànge ci biir dëkk bi ak màgg dawal yi ba léegi am na différence bu baree bari <laughs> dëgg la xam ni les gros porteurs ñi nga mm. xamante ni ñooy camionneurs yu sénégalais mm. jàng nañ seen métier maîtriser nañ ko aussi te mën nañu ko ndax dañ ko jàng ci anam bañ ko jànge mm-hmm. ndaw warta mën a nekk ci ginnaaw oto def ca sept ans wala cinq ans mm-hmm. génn yor permis de conduire ñu ni kii munta dawal loolu xel waru koo nangu. très bien kon lii bokk na ci la tax ngeen bëgg a grève est-ce wax ngeen ak kilifa yi wor ba pare laata ngeen di jublu ci grève. Euh, dem ngeen ci ci ministre des transports dem ngeen ci ñi leen di jiite daal. loolu aussi doonoon na acte bi nga xamante ni man moom laa bëggoon a. joxe. kam mhm. suñu kilifa yi. ku ci mhm. mel ni góoraxuma et jàllu ñaa aussi. puisque dama jàpp ni xëy na waxtaan moo amul mais as euh, comment dirais xëy na ñàkk déggoo amul ñàkk waxtaan mm-hmm. jàppoon ni xëy na bu ñu leen convoqué woon pour ñu waxtaan mm-hmm. xëy na grève bi mën naa bañ a am ndaxte grève bi dina sooxeel ci koom-koomu Sénégal lu baree bari ndax dañu wax grève générale ah doy na waar de grève générale nag kon transport en commun bi dina taxaw. Mhm. taxi bi dina taxaw. Mhm. gros porteurs yi dañuy taxaw. Mhm. te loolu tamit dina sooxeel. dina sooxeel koom day tax nit ñi gën a tardé liggéey. ñu mën a bàyyeeku ñu amul oto. ñu mën mais est-ce que yéen bind bind ngeen bataaxal est-ce que def ngeen pas boobu. parce que est-ce que prévenir nga leen euh, pour ñoom daal je sais pas ndax Sénégal dafa xat momo ah, te ku nekk am nga mbokk fenn. Mhm. est-ce que jublu ngeen jege ngeen ñooñu noonu ca kaw ba ñu bañ leen a recevoir pour ngeen mën a taxawal grève wala boog grève bi rek ngeen jàpp ni. moom ngeen mën a def pour ñu bàyyi leen xel pour ñu mën leen a ngeen toog waxtaan. aussi loolu nag euh, awma ci information mais yaakaar naa ni tamit amul. Mhm. ndaxte su amoon dinaa ko jot ci panel bi. Mhm. jàpp naa ne amul. ndax man ci sama xol ci sama xel. Mhm. loolu laa gënoon a bëgg. Mhm. te loolu laa gënoon a rafetlu. Mhm. puisque dama jàppoon ni grève bi doon na loo xamante ni ak ni ñu ko simbe waroon nañ ci waxtaan ak kilifa yi. ba xam dinañ leen déggal wala dañ leen di bàyyi ñu dem grève. très bien en tout cas mi ngi noonu quelle est la situation des transporteurs sénégalais au Mali. déggoon nañ ci ginnaaw mu amoon ay xew-xew yu fa xew ci seen ay diggante. Mhm. nan nan lañ koy dundee tey ñoom. waaw loolu moom euh, dañ koy ànd di ko ñaawlu ñun euh, Sénégalais yëpp même Maliens yi ñu ngi koy ñaawlu képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci ci ci ci réew yi concerné CEDEAO affaire bi métti na la lool. ñu am fa ay braquage yu bëree bëri euh, le premier braquage ñetti marocain aussi ñàkk nañ ci seen bakkan. ci ay armu lourdes maa ngi koy dégg ci revue de presse bi même euh, bi muy am fala la ma fekk aussi maa ngi ci doon déggante ak Pape Assane le trois le deuxième braquage mooy fi ñu taale woon suñu oto yi dix oto la ñu taal set yi au niveau du Jigini benn dëkk la foofu ci ci ci Mali Jigini à cent cinquante kilomètres ak Bamako. doy na waar kon yaakaar naa ni kilifa yi lii rekk mat naa interpellé. mat naa ñoom ñu woo leen waxtaan ak yéen bu ko defee ñu teg lépp ci suuf jamono ji jàmm gën lépp mhm. ah euh, te lu dul jàmm daal jàmm ak a gën du dëgg mhm. kon nag merci beaucoup ci sa teewaay fii mhm. euh, ci suñu biir lii nekk na lu euh, actualité bu bu poignante kon nag kilifa yi xam nañ ne yéen ak ñuy seetaan mbaa seen ay mbokk ñuy seetaan woo leen ñii ngeen waxtaan yee fit nag ay jaru ko n'est-ce jaru ko te nag ñii pare nañ pour waxtaan ak yéen askan bi sonn daanu nañ ba pare ñoo ñu yëgal ni altercation am na ci diggante ay policiers ak euh, ki nga xamante ni moom moo di bu amoon diggante ay policiers ak euh, kilifa gi di Mansour Faye mhm. euh, jàpp naa ni dégg naa policiers dañ leen sanctionné waaye dafa fekk ni moom moo respecté wul conduite bi